di gunal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan mu am lu kenn mosta am góor ak jigéen a say am ngir farlu gam farlu woon ak jom ju ja jamu am te dëddu caaxaan ak ak yaafus di sàkku ngërëm di boole xasmaan wa xasmaan xam itam fa mu jëm te daddu caaxaanak ak yaafus di sàkku ngërëm di boole xasmaan wa xasmaan xam itam fa mu jëm muy waaxu waaxu mu tar jëm foofa boole sa daw di daw ba xëy tàbbi péeyab yàlla àgg ne ker dàmb yi ngërëm ak i ndam yuy dootu jeex a kafar dundut lu dul aw turam muy baali ndax du ko xér te ñépp añ sib liggéeyam barke baa ngi ne xasar nee leen ko askay te askay musta jëf-jëfi ndaw bëxin bëxin mooya yow tagg ak way ak di ko kañ ku jëf yeyoo jaajëfal moo jëf lu am la njariñ te meññatum jëf ja tey jii ñépp ñépp sa añ nan sant kuy sant ak dolli ko duñ ko ko xañ kuy sant soxna sa nag bis penc dee su ko caw santal si xol ak si jëf ak wax si lay sooga mat ak cant moo ko yeyoo ngir moo fi jëf lu ko mat moom rekk wan moo ko jëf sellal jëfam jarafet ak cant moo ko yeyoo ngir moo fi jëf lu ko mat moom rekk wan moo ko jëf sellal jëfam jarafet te musta yuqee ta tiit léppam si jom ak fit jëfam rafet na te rëy looli te daawu ko naw moo sàmm moo farlu moo am yitte kenn dëbu ko si yaatu ak muñ lewet yi kenn yebu ko xam-xam bu rëy baag bi doom boobee rafet gisu ko ngir wut ngërëm teg sa bët tey waaxu yit wuti ko ba xëy yi nikk ngërëm xéewal yi mel ni ki taw te dammuwul bàkkuwul ak donte sañ na ko nag ngoram ga moo ko dul may ak woyaf gaa ko fekk te jikko yooyee mu lamboo yépp yépp ko jik yàllaa ko yëkkati bam def fang boole sa mbég talam ko jagleel si ay mbég lépp mel ñi talaw sang bi ñu ngi leen di ziar di ziar waa bi euh, di leen nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ak sant li ñu fi dajale nag tey mooy wax dëgg yàlla ñun benn association la bu tudd maa ngi ko defar transport du Sénégal yàlla dogal ma nekk ci bopp bi jiite leen waaye ñu bokk ak tamit sunu xarit bi nga xam ne moo nekk suñu wet nekk le vice président régional de la Garture de Nioro ñu koy wax Sidi Ndiaye teewal fi Pape Babacar Ndour mi ngi fi sax xëy na soriwul waaye ànd keeg waa maa ngi ko defar transport du Sénégal yëpp le porte parole est là Siré ñoom Mbaye Koutal Baye Zal ñoom ñëpp daal ñoom ñëpp. li ñu tax a dajale fii nag ci Koutal bi mooy sunu deuxième édition boo xam ne dañuy def 72 euh, heures de campagne de sensibilisation et de la sécuritaire muy tombanteeg bis bi nga xam ne ci la euh, murid di dem siyaare ji Koutal wala jullit yëpp ak bisu màggal Porokhane ak buñ màggalee ba ci suba si muy ajuma ji. liñ fa tax a dajale mooy ñëpp xam nañ ne ñun ay acteurs du transport lañ ñu nekk ay transporteurs ak ay chauffeurs en activité tey jii ñu mën dajale sunuy koom ak sunuy alal ak sunuy doole mën a taxaw tey dimbale pèlerins yi ci par rapport li nga xam ne mooy ay xéewal yoo xam ne dañ ko mën a yóbbaale waaye aussi dimbale suñu mbokk chauffeurs yi parce que dañ ne nit ki kat bala ngaa laax jaay laax lekk wàcc sur la base pour war a wax ak moo askan yi parce que ñëpp xam nañ ne ah, accident yi bëri na te tëli bi metti na waaye suñu wàccee sur la base danañ mën a wax ak ñoom de telle sorte kenn ku ci mën a nekk da nga mën a dégg suñu message ba mën a jëfe li nga xam ne mooy les normes sécuritaires de la route euh, wax dëgg yàlla day ñi ngi ci am contentement bu baax a baax baax ndax at mi nga xam ne defoon nañ ko ci ci baaxu yàlla ci maga yenn ci ci barkeb soxna si euh, benn accident lañ amoon boo xam ne dégâts matériels waaye nekkuloon dégâts mortels te ren ren wax dëgg yàlla ñi ngi am ay yaakaar ci xam ne vraiment ay statistiques yu favorable en tout cas ñi ngi ñaax daal képp koo xam ne yaa ngi yor oto jëm ci yoonu Koutal nga daw ndànk def ndànk ah di leen wax prudence sur la route waaye fii nga xam ne nekk nañ fi ci Koutal tamit am nañ fi benn quartier général boo xam ne QG lañ ko tuddee képp koo xam ne am nga problème défaillance technique ci oto boo ñëwee dañ la dépanner gratuitement képp koo xam ne tamit chauffeur la wala ku mën a doon rek boo ñëwee fii tamit am nañ benn quartier général boo xam ne bu ñëwee dañ la bàyyi nga dal noppaluku récupérer ñu mën la jox nga xéewlu bu ko defee mën a continuer waat yoon bi di ñaan yàlla yàlla di euh, jëfam day dëppoo ak waxam pas-pasam dëgër sàmm it kollareeb jigmatam dafay way du soppiw doxiini tayam ak it démb ak ëllëgay yam itam ku dul góor ba làqul melom yi ma lim yeyowul caqu boy bi jàppul jëmam ji koy soxna jaaraak rafet sellitam amul rax bu koy ñaa walit am na ndam bu kenn mënta sikkal si aw askanam si yéeneek wax ak jëf ak it pas-pasam ji koy sanga yam am te woon nay da koo dund jëf sa teg sa kem kàttanam lewet ak mu ñàkk farlu fonki dëkkam te gàttal tànkam teew làmmiñam te way deng am jom jëfeb am xamam te fas teefu xol di toppub sangam wayam ka sa incha allah rabbi ci kàttanu yàlla bu ñu ko yàlla mayee te fekk te ñu dal ba fekk liggéey bi xaw a wàññeeku bëgg nañoo dem fii nga xam ne mooy euh, prison bu Koutal bi nga xam ne tey sunu mbokk yi fa nekk te xam ne wax dëgg yàlla sunu borom moo dogal ñu nekk fa te ñun ñu nekk ci biti ñu mën leen dimbale ci li nga xam ne mooy xéewal muy ceeb ak diwlin ci tolloog 5 tonnes ceeb ak euh, presque lu mat 200 litres diwlin loolu daal laa amoon lu ci bëgg yokk waaye tëli bi kat accident yi bëri na te métti na te ñun kat wax dëgg yàlla bala ñoo war a mën def dara war nañoo mën a sàmm li nga xam ne mooy sunu patrimoine bi muy tëli bu ñuul bi waaye sàmmaat matériel bi nga xam ne mooy oto yi ndax accident moom bu amee dana métti ci li nga xam ne yaay dégg mooy borom oto bi waaye métti ci li nga xam ne tamit mooy ñi nga xam ne tey jii ñooy autorités yi muy ci wàllum pàcc wàllum sécurité wàll bu mën a doon waaye aussi dana métti tamit ci njaboot gi nga xam ne tamit lor nañ ci loolu quoi kon ñi ngi ñaan bi ñuy dëgmal yàlla na accident jeex ci kaw tëli bi yàlla na accident jeexaat ci kaw tëli bi ñun de incha allah rabi dañ ci def suñu kéemtalaay kattan ba li nga xam ne am na ci pays européens yi wala ci pays asiatiques yi que da nga dégg dund ay ñaari at wala ñetti at wala ñeenti at doo dégg accident te incha allah rabi dañ ci bay suñu kéemtalaay kattan euh, ñu def ko nag li nga xam ne euh, lu quotidien la. à chaque fois ñuy jéem a euh, fexe ba a xeex l'insécurité bi nga xam ne am na ci kaw tali bi salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf dan ngiram te muy sunna quraan di ab tegtalam jubal xeet wi won leen fi ñuy obadem liggéeyal sa yeneen lu xel muntaxam jubal xeet wi won leen fi ñuy obadem liggéeyal sa yeneen lu xel muntaxam bu sa moo yayoo jur ku mel nii ndaxam kabóor yàlla jiital si ab sañ mamar mañ sa bokkal ndayak ay rakkam amuñ kam ñi ak ña foofeenu jëm payug soxna jaara da dul nee xalim ma tànk fii kon te xañ aw banam sa tam di sëñ moor du dugg ay wayam simam ngir cofeelam gu feesub xolam ma julleeti sëlmal te booleeg ngërëm yóneen baak saxaaba yaak ay ñoñam ma julleeti sëlmal te booleeg ngërëm yeneen baak saxaabaam ya ak ay ñoñam di ku day garam di way ak a sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox seyxi bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara